fekk ñoom ñooy génnee façon communication yoo xamante ni dañuy manipuler sénégalais yi ne lépp lu ci am Samba Sall la du Macky Sall ne affaire bi y a une justice transparente ndeke du Samba Sall sax moo mettre Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire décision boobu Samba Sall jëlu ko mais ñu jël yëpp reposé ko ci ay épaules Samba Sall porté loo ko le chapeau ne lépp lu am ci affaire bi rek Samba Sall moo ko def du Macky Sall ndekete yenn yenn doon def ci suuf Samba Sall di bañ di bañ di bañ ba ngeen ko. asalaamaaleykum. waa grand grand maa ngi nii en grand Tunkara da nga bëggoon waxaale. acca grand Ousmane Tunkara la bisimilah grand. waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum vraiment les amis. maa ngi leen di Mm. Parce que je pense que ce combat qu'on vient de mener, ce n'est pas seulement un combat sénégalais, mais c'est un combat panafricain. Donc, nous remercier tous les Africains combattants qui se sont battus pour notre libération et pour la libération de notre pays. Mm-hmm. Euh, ma tàmbali nuyoo bi ci yow Kayz foofu gis nañu liggéey bu rafet bi nga def. pour le Sénégal. Euh, parce que moi je me dis toujours que nous on trop petit pour être euh, nit ñi loolu la ñu dul comprendre. Mm-hmm. loolu suñu jëmm ji mm-hmm. donc combat du Sénégal c'est pas un combat individuel. donc euh, vraiment maa ngi lay remercier ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yaa ngi koy defal Sénégal te yaa ngi koy defal sous région bi yëpp. Mm-hmm. remercier aussi sama frère et sœur sénégalais gambien malien. Mm-hmm. Euh, mauritanien. Mm-hmm. Euh, Ivoiriens vraiment ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi taxaw tey ñuy xeex ci combat Afrique bi vraiment maa ngi leen remercier bu baax a baax a baax te aussi benn affaire ma wax ko kay foofu ma wax la ne maa ngi leen doon dégg fi ma ne woon. Mhm. maa le leen doon dégg maa ngi leen doon déglu te impact bi ngeen am. Mhm. c'est marqué dans l'histoire des États-Unis mhm. man naa la wax lii rek. Mhm. exclusivement bi ma mhm. nekkee ci procès bi. Mhm. le juge le juge était très conscient des sénégalais qui étaient dehors. ak yeneen race yi doon protester. mi ngi ko doon wax ci biir procès bi. donc ce qui veut dire que suñu combat bi am na beneen dimension boo xam ne yéen a ko ci Afrique. boo xam ne vraiment war nañ cee mën a bàyyi xel. grâce à yow grand grand déedéet da ngaa wax ba pare bàyyil man tamit ma wax parce que yow da nga nekk sama grand frère boo xamante ni particulièrement gis nga sama yaay. nee na boo génnee te paasu paasuma la fexew ma ba mu déggante ak yow dina ma mere dina ma mere à vie donc loolu dama la koy wax tey <laughs> nee na ma nee na ma Ousmane Tounkara bu génnee waxuma ak moom rek man bàyyi naa la ma ne ko message boobu dinaa ko wax Tounkara jarul ngay mer. <laughs> kon xamal na ko woo tey boo paree rek ko non yow guerrier nga nga jël épreuve bi subir ko avec dignité ñu tooñ la. defoo kenn lu bon ngay xéxal Sénégal man nga nek sama grand frère bo xamanteni dama damaa di jël ay conseil ci yow nga nek un digne combattant un digne fils du Sénégal bo xamné il a risqué toute sa vie amoon nga sa lepp sa teraanga lepp am nga ko ci sa ci ci Amérique mais nga ñew jël lepp di ko risqué di xéxal Sénégal donc ñun sénégalais buñ la remercier wul c'est qu'on est ingrat ñun sénégalais buñu waxul pour sa libération c'est qu'on est ingrat ñun sénégalais buñ la xéxalul c'est qu'on est ingrat donc ñun ingratitude bobu Yalla daf ko daf ko dindi ci ñun légui parce que on est désormais ensemble dans ce combat là d'autres ci wéet j'espère que ñun ñi di combat duñ ci wéet parce que sénégalais yi gis nañu la valeur de Ousmane Tounkara qui est vraiment Ousmane Tounkara bu ñu la jappé lañ ko xam internet bi wéetoon na trop man sonon na grand dama lay wax la vérité ah. sonon n'a trop ah. parce que côté bi nga doon gérer yow rek ya ko mën ah. amul kenen ko la ci mëna concurrencer donc ñun tuuti côté lañ mën lo xamanteni mënon nañ ko ci apporter mais sa présence bi tey ñëwaat doole xeex bi ñun day mel ni arjana la ñu jox parce que on t'attendait on t'attendait parce que tu es quelqu'un boo xamante ni ta place confirmé bi nga fi nekkul ñëpp gis nañ ne kenn mënu laa remplacer Grand Tounkara vraiment. Euh, mais maa ngi fi ñëwaat naa te xam nga li ma lay wax la toujours rek. Mhm. Euh, boo jëlee exemple Nabillahi Yusuf da ngay comprendre ne li ma dal ni jombul benn doomu aadama. dëgg la.

boo nekkee nitu dëgg di nga wéet mais mhm. doo torox billahi grand billahi parce que fi ma nekkoon mhm. chaque jour que Dieu fait benn conscience rek laa doon am suis tranquille suis yéen ma xam ne man de dama bëgg sama réew sincèrement mhm. sans condition te bu ma ci je suis prêt si je si je dois mourir pour le Sénégal je suis prêt parce que man Sénégal laa mhm. donc lépp loo xam ne day defar Sénégal. Mhm. bëgg naa ñu jàpp ci ñu mhm. bañ ca dellu ginnaaw. wallaahi la dara delloo ginnaaw. jamais xamal ne ni nga nekkee sama côté. je suis revenu de tes côtés tu as mon support à cent quatre vingt pour cent. merci beaucoup bu merci beaucoup dégg nga merci grand soo paree nga woo vraiment ñu woo maire. d' accord maire maire nee na may bàyyi à cause de toi donc. Euh, <laughs> Inch'Allah. Merci, guys. <laughs> Merci, ouais, Grand Tunkara. Merci. Merci beaucoup. Mm -hmm. donc euh, kooku us Ousmane Tunkara, vraiment suñu grand frère boo xam ne comme ni ma leen ko waxee ñun dañuy wax man ak Ousmane Tounkara grand Tounkara donc dañuy waxtaan téléphone euh, parfois combat bi jamono yuñ ci di nekkoon ba Sénégal tàngoon jir dañoo doon wax ne grand bi stratégie lan la donc ne lii moo lii bu amee lii la ñuy def lii la ñuy ñuy teg suñu ay plan di waxtaan ci xeex bi nuñ ko war a mënee donc moi tax bu ñu ko jàppee rek affaire bi diis torop ci man parce que tout seul ma wara nek di débrouiller fini nii côté bu mu doon gérer man mënu mako gérer donc affaire yi metti won torop ci man mané donc ndeysaan wetna ci xeex bi mais Grand Tounkara ñibbisi wat na ñëwaat na ak ñun donc euh, maa ngi lay remercier bu baax baax pour coup de fil boo xamante sénégalais féké nañ ko en direct pour témoigner leen lepp li ma leen don wax ci euh, solidarité bu nek entre ñun ce n'était pas un mensonge tey yalla def na ngeen féké ko en direct donc euh, dinaa ko paas sama yaay mu waxtaan ak moom parce que sama yaay dafa doon yeewu chaque jour di ko ñaanal di ma ñaanal di naan sama ñaari doom yi moom sama ñaari doom yi lay wax. deni Ousmane Tounkara ak man ñun ñooy ñaari doomam bi ñu Macky Sall mu ngi ci man benn côté bi mu ngi ci Ousmane beneen côté bi chaque jour bu yeewoo ñaan ñaan ñaan jour bu ñu bàyyi Ousmane Tounkara dafa jël téléphone am woo ma di ma lancé na day mel ni yow la ñu bàyyi mu ne ma instant sama xol bi dafa sedd ba su ma waxee rek sama rongoñ dina tuur ma ne ko garaawul donc Ousmane Tounkara inshallah dina dinaa la ko paas ngeen parce que ku baax la euh, nit la bo xamante suñu famille donc bo xolé di ci retrouver ay liens ay liens de parenté sama yaay xamna mbokk yi donc di ñoom ñaar bu ñu waxé dinañ dinañ retrouver donc vraiment euh, ñu continuer waat ñu continuer waat ci xeex bi yokk leen